la xam <laughs> ndaxte nga ñaari ay ay ay mbokkam mm-hmm. te loolu la bëgg a faj non non vraiment loolu làmb la loolu moom bu ko indaalee lay gën a yomb sax ah bon <laughs> ah oui day gën a yomb ah bu indaalee mer ah. <laughs> lay gën a yomb vraiment ah, ah oui bu indaalee ñaari defet yéene ah oui non bu ne ñaari sànq maa gis Bouba Diop ci ginnaaw problème la ak Cheikh Dieng <laughs> mooy mooy wax katam bi Cheikh Dieng léegi moom defe naa mbër mu yàqu la maa ko gis seen sànq dañoo gis. ñëpp jaar naa ñoom bëri naa ñoom. xam nga xame xame ngeen. ah kon. Tafa Gueye mhm. ndax Modou ñaar rek la fa daan du ñaar rek ñaar ñoo bees ñoo mujj mais yaakaar naa ne am na yeneen yoo xamante ne mhm. dëkk nañ Pikine te mu daan leen Modou ñooyu mbër ñan lañu damay tooñ loolu ginnaaw la nekk <laughs> bëri naag booy ñaar doomu ndeyam la bëri naag Bouba Diop sànq waa Cheikh Niang di moins ah Pape Boye ñaar damay bëre. ñoom da nga leen daan wala la noonu. non dama leen daan kay. Ah. sama deuxième combat yow Bouba Diop. waaw Bouba yaa doon bëre Diop ah, doon bëre. mais comme day wax yëpp ay tooñ la sama ginnaaw la nekk fàtte naa ko moom laa amal bis le premier janvier. nekk ci di yàlla yóbbu ci ak jàmm ak salaam may moom ci kaw. li nga ñëwee woon ngay ñëwee. mais mais dina yàlla may talag fekke yi kon boog Boy Niang léegi ñeenti revanche la war a jël c'est trop. ñeenti revanche c'est énorme la war a jël la waa Pikine la war a ah, jël Boy Niang kon Boy Niang question wu. Cheikh Sarr Cheikh Sarr Cheikh wala dafa am loo bëgg a duggee ci biir kii waxtaan bi nii. waaw balaa may ñëw ci question bi. waaw damay ñëw ci moom. waaw parce que dégg naa li mu wax. comme naan laa moom moo ñu boole ñu war a bëre. comme li mu wax daan na Cheikh Niang daan na keneen ak keneen ñooñu moom leen daan man gisuma ñëwuma. mais man dafa ñi am poulain am indi ko ci biir géew bi muy dol fa taxal ko Senghor defar ko lépp ma daan ko jël bu gaaw mu ñibbi. daan moom. dolf dolf waaw. da indi ci biir géew bi man ak moom mu ngi fàttali ko lool ci biir géew ba koy tooñ. waay mu ko taxal ko Senghor yor ay gaalaay ay ñax ak ma ko daan ko. la. merci kon loolu moo amul solo ay kii laa daan kee moo daan kii loolu ay détails la. li am solo mooy ah. ma wax rek parce que dama la wax dama la déglu waaw. li am solo mooy làmb moo ñu boole ñu war a bëre. ma xam ko bu baax moom ma xamul bu baax. ñu seet mm-hmm. kii war a bëri loolu moo am solo. mais le que ay daan naa kii daan loolu amul solo man daan naa ñoo xam ne daan nañ ko loolu amul ay détails la maa ngi moom ñu war a bëri ñu boole bu ñu ci yegsee moom dina xam ma xam. mu ne calcul bi ci yow daa bari. non non loolu loolu yoonam newu ci moom li may bëree fu ma calcul ak lu may indaareeg lu may yab ak suma ay papa ak suma staff li ñu def sama bopp ak loolu yoonu new ci loolu mu ko liggéeyanti moom na liggéeyanti li muy ñëw li muy ñëwee ak waa Rock Énergie li ñu koy yebee na indi loolu man li may indi moom loolu man la concerné damay calculer damay dem damay dóor damay xaar dama koy jëli dama koy xaar yooyu yëpp man la concerné concerné ko moom mu ne bëreeg yow moo gën a jafe ak bëreeg adversaire bi mu passé waaw loolu tamit ay waxam la rek waaw loolu moom nekk lu may non man loolu nekk lu may focus man ok nekkul lu may lijjanti ok waxam boobu noonu loolu waxam la nu ko dagg def ko ci poosam loolu affaire la mais man li nga xam ne moom laay liggéeyante mhm. mhm. ko. Mhm. ñëw fas yéene ñëw def fula ak fayda ak jom di ñaan suñu borom may ma ndam. mais booy ñaan waaw persa la booy ñaan dafa mel ni ni ngay waxee nii dafa am loolu. xadar nga mer xadar non dafa mel ni xadar gi. non non du mer non dañuy waxtaan rek xam nga selon ci ni ñuy waxtaanee nii. la waxtaan wi du ubbeekoo. te ubbeeku bi taskatu xabaar yi dañuy bëgg am yóbbal ñoom it Modou bi mu waxee dégg nañ li mu wax dugg na Pikine duggati fa duggati fa duggati fa yow tamit dugg nga parcelle moo ngemb dolf takkal koy sangoor tajal koy ñàkk nga daan dolf mais yéen ñaar dafa mel ni sax da ngeen bokk ni ngeen di bëri mais balaa maa ñëw ci loolu ni ngay waxee dafa mel ni xadar danga nga mer. Mhm. te mer bi seen est normal parce que dama jàpp ni Pikine nga dëkk te bu fa daane ay champion da ngaa mer seen est normal mer moom ndax moom nga yóbbu ba bis ba. est-ce du la indil jafe-jafe. père ba ngeen di jàngat léegi ci làmb da ngeen a man ci këru làmb laa judd. Mhm. ngeen li ma fekk ko ci kër gi. Mhm. tamit nag xale laa du xale ci làmb bëri naa bis bu nekk loolu amul benn problème làmb la ñoo ko seetu maa dama ñëw mu wax sànni ma xeer ma wax delloo ko amul mer amul dara dafa wax del jox ma ma wax delloo ko. Mm-hmm. Mm-hmm. bis bi bis bu am solo non mer bi nii wax waxuñu yow da nga. non waxuñu <laughs> mer. yow meroo de yow yow doo géwél Pikine yow dañ andi dégg gi meroo yow yow yow meroo mais Pikine nga furlil daa indaale meroo voilà da nga indaale meru Pikine pression la pression la dëgg la bëri fa am fa ay ndam waaye loolu yàgg nañ ko gis ci làmb mm-hmm. nga def benn gox suñu borom dina fa may ndam noonu mm-hmm. nga fay duggee ci am ndam ba dafay ñëw nga am fa defet parce que làmb noonu la tëddee mm-hmm. mais dama loolu dama ci profité waale di di encouragé suma ay frères ku ci mel ne Eumeu ku ci mel ne Ama Baldé ñu bokk dëkk Pikine ñu bokk ndey ak baay dañuy wax naan làmb dafa bëri coow mais bëriwul problème man Pikine tamit dama gis ne dafa bëri coow mais bëriwul problème Ama suma frère la man Boy Niang dama mës a constant su may wax musuma wax li tey suba ma wax leen samay wax mooy Ama dañ bokk ay adversaire damay bari jox ko moom mu bëri jox ma moo boobu man maa ko wax te loolu mooy sama wax chaque jour il faut que suñu ay supporters suñu ay fans suñu ay xarit suñu ay doom day ñu xam loolu xam ne man ak moom dañoo jóge ci laa mu nekk ñafe góorgóorlu zéro ba egg fi ñu egg si bokk ay adversaire ama seen nekk suñu mag donc Pikine nañu rafetal lépp ñu bokk ndey bokk baay parce que ñu deretu Pikine mooy daw suñu yaram te dañoo ñafe zéro dañoo ñafe zéro ba ñuy commencé fu ñu dem dañuy xeexal Pikine mais bu ñu amee ndam lu mu gudd guddi dañuy fanaane Pikine maa ngi nii ñëw ci Fass fa laa jóge fa laay dellu donc Pikine ñu ñëpp dañ fa dëkk ñu bokk ndey bokk baay Pikine boo ko xoolee ci taarix dafa amoon suñu ay papa yu fa nekkoon di bëree suñu papa Pape Diop Boston maa ngi koy ñaanal suñu moom dafa ko jàmm suñu papa Fallaye Baldé suñu borom xale ko àjjana ñu pare ñëw Mansour Diop ñëw sama père Bourkhane yi ñeneen ak ñeneen ñëw sama papa Dégol ñëw ñu fi jógee Ndiaga Diop ñëw ñoom Baboy ñëpp ñëw def seen carrière mu jeex man Boy Niang man Eumeu Sène man Ama Baldé dañuy ñëw def suñu carrière mu jeex ñu dem xool ñeneen ñëw donc soo bi nañ ko rafetal ñu bokk ndey ñu bokk mm. baay xam ne ñu ñëpp ñoo bokk Pikine man ak Ama dañuy continuer waat di bokkat ay adversaire muy bëri di ma jox muy bëri di ko jox maa ngi koy ñaanal jàmm di ko encouragé di ñaanal ëmb jàmm di ko encouragé mais li nga wax dëgg na dama mer voilà ma mer lu tax ma mer mooy sama gox ma mer sama gox muy Pikine ma juddoo fa yaroo fa màggee fa muy sama deret instant dañoo sëggee am lu leen métti <laughs> voilà te loolu kenn teguñu ko suñu borom moo ñu ko teg jaaree ko ci moom waaye incha allah dañu ñaan le premier képp kuy Pikine waa nga sigg reetaan bu baax. waaw léegi ci loolu ma laaj ci loolu noonu ma laaj la si ne yow ni Modou def Pikine yow noonu nga defoon géejawaay bi ngay doon bëreeg adversaire géejawaay aise bi nga doon nekkee est-ce que duñ ko nekkee kii. non loolu mën na nekk à l'aise amul benn problème <laughs> mais géejawaay dama ko duggoon di daal mais bés yow dama am fa defet <laughs> waaw moom it na xaar loolu de. ah waaw na bu baax a baax a baax. laa ma ji ñaaruma ko dara daruma ko may te xam naa ni mën na ko xam wala mu ñàkk koo xam waaye am combat de. Hmm. yàlla xam na ko. Cheikh na Cheikh Sadou Habib mooy suma am na combat de. na mooy suma wasila. Hmm. moom na combat bu baax a baax. ah Maodo. tolloo ah, ah, moom wax ju yàqu la am combat bu ñuy signature. Hmm. ma ne ko am na combat wax ju yàqu la ndax am combat bu wéy fii. ba tax ñuy signature. as dëgg ay mbër la waaw question bi ma bëgg a mooy lan. booy ñaar laa koy posé damaa xool seen ñaari palmarès. ma xool palmarèsu Modou ci ñi mu daan. Uh-huh. ma gis ci ay Eumeu seen ay Gris Bordeaux ay Ama Baldé ay Issa ay Papa Papa ay Paul Maurice uh-huh. un grand champion. au bu metti uh-huh. ma gis ko ah ma gis par rapport ak moom kombaam dëgg la daan na Balla Gaye numéro 2 ah daan na Guy gi daan na Garga Mbossé daan na Baye Mandione daan na Sa Kajoor est-ce que boo xoolee ñaari palmarès yi est-ce que di nga yaakaar ne am amul différence wala. waaw mais foofu mu am différence parce que moom daf ma jëf ci làmb. et puis ñu mu bëree man bëriwuma ñoom. Mm-hmm. man su fekkoon ni moment bi ci laa dugg kon ñi mu wax ñi nga wax ni yëpp naa bëri ñoom. ci làmb question bi du bëri mais daan bi. waaw dëgg la daan ay champion loolu moom le fait que boo ñaa wala ma ñàkk ko wax da ngay xam ne Modou champion la loolu kenn waxatuñ ko loolu moom nekk na lu ñu féete côté waaye noonu la mais nag comme ni may wax rek pour nga yegg fii il faut nga daan ay ndaanaan dama mm-hmm. loolu dama ko dugal sama bopp bu may commencé ko léegi dama jàpp ne bu ma doon champion dëgg moo tax combat bi dafa am solo parce que combat bi dafa am titre roi des arènes dëgg la mm-hmm. waaye man Boy Niang personnellement titre bi soxla naa ko mais intéressé wu ma à 100 pour cent li ma intéressé mooy dama bëgg suma carrière ma daan ci ay champion bu ñuy lim sama carrière ñu ma daal ñu lim ay champion yu mel ni moom yu mel ni Balla yu mel ni keneen ak keneen incha allah waaw beneen bi Modou Lo moo ko moom Modou yaa ngi bëri xale boo xamante ni ni li la gën a metti ci làmb